jërë ngeen jëf euh, mbokk yi ñoo ngi leen di euh, nuyu bu baax a baax yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi ci rajo réew mi FM quatre vingt point cinq seen émission pencum réew mi ngeen di si ànd ak euh, Abdou Khadre Seck samedi bu jot bu quinze heures jotee jàpp seize heures. Abdou Khadre moo nekk ci micro bi aadama Diallo moom nag moo nekk ci wàllu technique bi. mbokk ñu leen di nuyu bu baax a baax suñu mbokk auditeurs yi ak suñu mbokk auditrices yi di jëfal bu baax a baax ak euh, nuyu ak euh, baalu ak mboolem ñi nga xamante ni nag ñoo ngi ñuy euh, déglu xam nga ne tey jii si samedi ji nag am na ñoo xamante ni jot nañoo wari ñooñu tamit ñu leen di jaajëfal bu baax di ñaan yàlla suñu borom nag ñoom seenu koor yàlla suñu borom daal di nangu lépp tey nag mbokk yi ñoo ngi dellu am mbégte daal di invité Lamine jara Lamine jara nag ñu daal di koy xam ci kër gi nga xamante ni moom mooy euh, Senelec waaye tamit ñu daal di koy xam ci benn kuréel kuréel boobu nag mën nañu ko wax tamit euh, syndicat pour ñi nga xamante ni tey ñoo dégg euh, amaana nasaraan syndicat bi mu nekk ci Senelec moom moo tudd syndicat unique et démocratique des travailleurs de l'énergie du Sudaten mu nekk syndicat boo xamante ni dafay nekk di ñaxtul ñi nga xamante ne ñooy liggéeykat yi di ñaxtul tamit euh, Senelec di ñaxtul euh, askan wi euh, Lamine am nañ mbégte bu baax a baax invité la dal tey ci réew mi FM. jërëjëf Abdou Khadre maa ngi lay gërëm di la sant ci invitation bi di di la nuyu di nuyu sa technicien bi di nuyu bépp déglukat bi nga xam ne mi ngi seen rajo bi di déglu di ñaan yàlla lépp luñ fiy wax mu doon njëriñu askan bi. di profité ci occasion bi aussi di baalu ñëpp àq di baalu ñëpp àq di ñaan yàlla sunu koor gi ñu génn lépp lu luñ ci ñaan yàlla nañ ko yàlla nangul euh, mbas mi nekk ci réew mi aussi xam nañ ne koor gi ku ci nekk ñaan nga fa nga toog donc yàlla na dégg na yàlla na yàlla dégg ñaan yëpp te nangul ñu ko. jërëjëf euh, Lamine Diarra ñun ñu dellu am mbégte bu baax a baax nag ci ñëw gi nga xamante ni ñëw nga ko fi ndax xam nga ne euh, korite gi dëgmal. ak euh, xat-xat yeeg yooyu yëpp nga bàyyi ko ñëw loolu ñu la si jaajëfal bu baax a baax tey nag mbokk yi dañu fa yéene waxtaanee kër gii di Senelec ndax xam nga ne Senelec euh, maanaam dafa nekk euh, kër gu am njëriñ ci réew ndax tey bu ñuy wax tey ba ngeen ñuy dégg ginnaaw yàlla liggéeyu Senelec mu ngi ci biir Lamine yow nga yàgg Senelec ndax mën nañoo xam sax bala ñuy commencé waxtaan yi pour askan wi xam Lamine Diarra yi ñaata at la def ci Senelec waaw man de yàgg naa Senelec parce que euh, mën naa wax ne 1987 laa fa dugg. 1987. waaw 1987. la <laughs> le le premier juillet 1987 laa signé sama contrat donc romb naa fanweeri at ci biir Senelec. biir Senelec. yàgg naa fa liggéey naa Nioro liggéey naa Kaolack Cap bis nag laa gën a yàggee. Cap bis moom mun naa ne def naa fa léegi euh, ñaar fukki at ak lu topp mu jegewul fanweeri at sax. Mm-hmm. donc euh, sama carrière Senelec foofu la ci ci centrale yi laa mës di liggéeyee léegi nag euh, ci plan syndical lañ ma gën a xame parce que yàgg naa ci yëngatu Sutelec laa nekkoon def naa fa lu ëpp ñaar fukki at ci biir Sutelec bépp xeex bi nga xamante ni mosoon na am ci Sutelec bokkoon naa ci sous section yi nga xamante dañ ci daan gën a taxaw mooy euh, ba ñuy couper courant yi ñetti fan yi ña nga ca woon ba ñuy tëj nit ñi kaso euh, ñoom Mademba Sakho ak yooyu boobu ñun maa ngi woon ci biir di di di bokk ci xeex bi léegi nag euh, damaa nekkatul Sutelec parce que Mademba Sakho moo doon jiitee euh, Sutelec nekk suñu njiit ba ñu demee ba bokkatuñu gis-gis ci doxalinu syndicat ñun ci lañu ber suñu benn syndicat bu ñuy wax Sudeten boole kook ay xale yi nga xamante ni man la ma taxoon dugg ci syndicat gëm ko loolu laa gis ci xale yooyu moo tax ma bëgg leen a gunge li ma des as néew ci liggéey pour que ñu mën a xeex daal xeex bi nga xam ne moom moo taxoon ma dugg ci. Euh, Lamine Sànq yaa ngi wax euh, doxalinu syndicat lan mooy doxalinu syndicat. waaw doxalinu syndicat xam nga même ci ci ci yoon dañuy wax ne syndicat dafay défendre liggéeykat yi aar leen aar bërëbu liggéeyukaay bi fexe ba liggéeykat bi jot àqam mais fexe ba. bërëbu liggéeykaay bi aussi ñu bax ñu bañ koo foye yàq ko parce que buñ ne syndicat wax liggéeykat dafa fekk entreprise nekk fa bu fa entreprise nekkul kenn mënta wax waxi syndicat bu boobaa ñëpp dañuy tas ñibbi seen kër donc syndicaliste bi war na fexe ba liggéeykat ba fay nekk mu am àqam waaye tamit muy wax dëgg liggéeykat bi parce que liggéeykat bi tamit doo ko doo ko aar rek te mu nekk ci dul yoon donc dafay am rôle éducation booy jouer nit ñi dañ laa jiital wóolu la soo gisee naka kuy def ñu naka su noonu war nga war a mën a waxtaan ak moom patron bi aussi su defee lu dul yoon war nga mën a jàmmaraloog moom pour wan li ngay def ànduma ci. waaw mais syndicat même bu dul yéen seen syndicat bi maanaam gis syndicat bu dul ñaxtu dafa mel ni yombul de. waa yombul parce que xam nga. syndicat yéen moom dañuy wax ne lu ñu leen mën a defal force ngeen ñaxtu ñaxtu daal dafa mel ni moom moo moo bokk. si déedéet xam nga euh, àdduna nu mu tëgg nu mu tëddee. Mhm. depuis jamono boo yàgg ba léegi patron ak liggéeykatam du ñuy bokk ay intérêt toujours parce que patron bi toujours day fekk day seet koom-koomam nu mu gën a yokkee liggéeykat bi aussi day fekk day seet poosam nu mu gën a duune mhm. parfois nag seeni intérêt du doon benn moom moo tax ñaxtu il faut mu am te patron yi ci xam ne yi nga xam ne dañuy jékki-jékki rek gis ne ah liikat kat samay liggéeykat mérité nañu xaaral du ma sax xaar ñu wax ma jox leen bëriwut ñu ci bari il faut nga yëngatu pour ñu jox la. moom moo tax ñuy ëpp li ñuy dégg. mais yéen syndicalistes yi yéen da ngeen ni kaas benn affaire ñu jox leen mais ngeen kaasaat. yéen daal loolu lañ leen koy bàkkee tamit euh, Lamine. waaw waaw xam nga nag xam nga syndicaliste bu ñu nee syndicaliste euh, yow da ngay nekk syndicat bi nga xamante ni da nga am ay militants yu bëri yu nekk ci biir kër gi. Hmm. di am ay militants yoo xamante ni nekk nañu fu kawe ci biir kër gi. Hmm. donc yow kër gi comme fu nekk am nga fa nit ku la fa toogal. kër gi nu muy doxee fa mu toll la mu mën yow da nga koy xam. yow da nga koy xam donc bu ñu la joxee dara nga ñaax liggéeykat yi ñu liggéey. ba koom-koom bi yokkaat. waa ji bu yëngatuwul il faut nga laajaat. Ah, parce que da nga naan li li seen bopp. waaw parce que da nga naan <laughs> parce que par exemple boo jëlee exemple Sénélec. Ah ah. Sénélec bu amee bénéfice bu ñu liggéey ba mu taxaw. Mm-hmm. bénéfice bi normalement ñetti pàcc la war a nekk. Mm-hmm. benn pàcc bi mooy ñi tax mu am. Mm-hmm. mooy liggéeykat yi benn pàcc bi mooy Sénélec loolu mu mu mu mu mu jëriñoo ko pour soqali ko beneen bi mooy population bi population bi moom mooy nu ñuy def ba wàcc ba wàññi courant bi nu ñuy def ba yokk ko ba yóbbu courant bi ci village yeeg donc ñett yooyu ñoo fi am ñett seddale yooyu la la yàlla. Ah, mais mais léegi Sénélec est-ce ma ngi def bénéfice. Sénélec tolloon na jamono dafay am ay jamono yi nga xam ne dafay am bénéfice am jamono yi nga xam ne du def bénéfice parce que Sénélec boo xoolee moom lu mu ëpp ci li muy utiliser ci machines yi la koy utiliser moom mooy combustible bi. te combustible boobu moom maîtriser wul prix bi pétrole bi li muy jar ci àdduna bi moom ci loolu léegi da ngay jékki dégg pétrole bi yëg na trop hmm. bu yéegee trop Senelec da koy yëg bu wàccee Senelec da koy yëg léegi bu tollee jamono bu mu yëg trop dafa am lu ñuy wax organe de régulation du sous-secteur de l' de l' électricité kooku moom mooy fixer prix prix courant bi dafa naan Senelec wax ma yow nooy defaree courant. ñaata ngay dépenser ñaata ngay fay ñaata nga sa charge yëpp ñaata la kooku toog mu ne ah Senelec de Senelec ne man su ma defaree lépp pour ma mën ci génn il faut ma jaayee lii. Mhm. pour ma mën a am bénéfice di fay samay salaire di def samay investissement organe de régulation bi moom tamit xool ne Senelec yow li nga wax ëpp na wala li nga wax kat tuuti na même li nga wax ni boo ko defee doo ci génn état bi toog ñu ne ban solution moo am dañuy yokk courant bi. Sénégal mën a am bénéfice wala bu leen yokk la ci dolleeku état bi moom moo la koy dolli muy subvention bi. Mhm. donc ñaar yooyu moom mooy am dina am jamono yi xam ne état bi dana dugal xaalis ba dugal lu mat cent milliards. ci mhm. at bi parce que du bëgg courant bi yéeg. courant bi yéeg waaw bu yéegee tamit day coow li day bëri. Mhm. dafa naan Sénégal ak yéen defar leen rek la ci dolleeku man maa koy teg. léegi la ciy dolleeku nag bu bu pétrole bi commencé wàcc état bi day wàññi la mu doon joxe ba mu jeex fin bi. fekk ne Senelec mi ngi commencé ah, wàcc bu wàccee wàcc nag booba commencé def bénéfice état bi dootul joxe mais Senelec mooy am bénéfice d'accord kon léeg-léeg moo tax ñu ne état bi dafa amel Senelec xaalis waaw parce que bi Euh, du la fay noonu. du la fay fay bu gaaw fay bu gaaw dina la fay sax. mais dina yëkkati xaalis fay la nii. waaw waaw dinañ la fay xaalis parce que parfois ay système de compense dafay am par exemple Sénélec dafa am ay ay yu mu war a fay. ah day amel état xaalis état amel ko xaalis. waa ñaar yëpp dafay am. dafay am c'est-à-dire dañuy xool Sénélec ñaata la waroon a fay ci impôt. impôt bi ñaata la waroon a joxe. ñu ah. ñu ñu ñu ñu ñu waaw ñu compenser ko quoi. Mm-hmm. léegi Sénélec problème mooy état bu la amelee xaalis la teel fay mën naa dem mën naa dem ba projet de budget ñëw wala fin d'année mu fay la alors que yow chaque jour da ngaa war a liggéey. mais mais mais état bi tey. Mhm. xam nga tey par exemple tey état lim leen di ameel. Mhm. moo ëpp fuuf yéen li ngeen di fay impôt. fuuf bien vrai que yéen bu ngeen si impôt bi bu ko si état bi teqee. Mhm. maanaam lim leen lim leen ameel mu moyen si impôt bi. xam nga dafay des lu bëree bëri. léegi loolu nga xamante ne état bi daf leen koy ameel. xam nga doon naa fi dégg ay deux cent milliards. deux cent et quelques loolu est-ce que mënul indi gàllankoor. ci liggéeyu lekk day indi gàllankoor parce que bu fekkente ni yow da nga da nga da nga xayma say mbir nga ne lii kat bëgg naa ko liggéey ci at bi lii bëgg naa ko yokk ci at bi lii bëgg naa ko yokk ci at bi la nga calculer lépp danga ko def wékk ko ci li li la état bi jox ci période boobu mhm. donc loolu bu la ko état bi joxul ca moment ba nga ko soxlaa la nga bëggoon a def doo ko def donc dafay gàllankoor sa liggéey am na réalisation yoo xam da nga ko waroon def mais mënoo ko def parce que état bi daf lay yéex a jox xaalisam Mm-hmm. mais mais mais loolu noonu euh, état bi mais comme est-ce que Lamine lu mel noonu Senelec daanaa ndax xam nga Senelec tamit dafa bari ñu bari dañoo umpale lu bari ci Senelec comme mm-hmm. nii ñu leen état bi euh, état Macky Sall bi di amee lee xaalis mm-hmm. est-ce que yeneen état yi fi jaaroon doon na doxale doon na doxee noonu waaw xam nga état Macky bi sax moom am na période bu mu demee ba pétrole bi wàcc bu baax sa joxatul sax Senelec xaalis Senelec doon na def bénéfice mais boo xoolee bi gën a tar moom mooy bi Ablaye Wade ay 2011 2010 2011 jëm 2012 tuuti. foofu état bi la mu doon def ci xaalis néew na at yu mu ko mës a def parce que pétrole bi dafa yeggoon fi nga xamante ni dafa jéggi dayoo dem ba jege ay cent dollars donc foofu la gën a gën a gën a gën a metti woon. ci Sénélec. waaw ci Sénélec ak ci état bi ci boppam. ak ci état bi. parce que état bi dafa demoon ba moom day loué sax ay groupe parce que ay amatul lu mu mën a Sénélec amatul lu mu mën a defaree. mu dem woo ay nit ne kaa leen ngeen samp ay machine di ma di di di jox Senelec ma leen di fay te groupe yooyu dafa cher par exemple ñooñu buñ la jaayee benn kilowatt cent cinquante franc ñu jaayee ko état bi te Senelec mi ngi jaayee cent huit franc c'est-à-dire que ñoom saa yu ñu jëndee rek perte nañ. Mm-hmm. mais Senelec état bi mënul woon bañ a jënd loolu parce que bu ko deful dëkk bi. du am courant mais état bi nii moom euh, nemmeeku guñ si jënd wala. non privé moom am na Sénégal. fu mu nekk nii am na ay privé yi nga xam ne ñi ngi fii di di di produit di jaay mais seen prix moo gën a wàcc bële parce que ñële diesel oil bi lañ daan utiliser presque gasoil mhm. tandis que groupe yi fi nekk nii di jaay Senelec ñoom fuel la ñuy utiliser fuel moom mooy bi machine Senelec yi utiliser moom seerul trop ñoom bu ñuy daw Senelec def ciy gagné. Ah, mais Lamine euh, kañ lañu dem ba Senelec mën a yor loolu lépp. waaw Senelec moom yore pour yore courant bi yëpp moom euh, xam nga politique gu àdduna bi nu mu tëddee léegi. yow da ngay fexe ba yenn machines yow nga moom ko nga ubbi sa capital man mu ngi mel ni man Abdou Khadre man de ah, fii ki at damaa bëgg ku am xaalis nga ñëw indi say machine defar courant man Senelec ma jënd ko di ko jaayaat nga ciy am. Mm-hmm. kooku ñun liñ ciy ñaax Senelec mooy parce que xool nañ ne ñu bari ñu fi installé nii borom xaalis yu dëkk ci biti bitim réew la parce que dañu am xaalis ñëw. Mm-hmm. privé sénégalais ñoom bu ñu organiser woo war nañu mën a dugg ci secteur boobu. maam def li ñee di def. li ñële di def ay sénégalais organiser wu. Hmm. indi ay machines jël ay techniciens sénégalais di liggéey. di di jox rek di ci jël bénéfice parce que ñoom seen bénéfice ci biir dëkk bi lay yem. mais loolu lu mën a nekk la. jàpp nga ne lu mën a nekk lu mën a nekk la te jàpp naa ne waxtaan bi ñu mujj mujj waxtaan ak directeur général bi fi nekk. Hmm. Ah, wax nañu ne moom ci loolu la bëgg taxaw. que au ñeneen jóge fële à l'étranger indi di liggéey di jël seen bénéfice di yóbbu su mënee fexe ba sénégalais yi fi nekk am alal ñu sawarloo leen pour que ñoom ñu jël risque dugal ci pour am xaalis politique boobu daal bokk na ci xalaatam te woon na ne moom wax na ko conseil d'administration pour ñu jàppale ko ci loolu. jërëjëf euh, Lamine jara mbokk yi moom ngeen di euh, déglu moom nag euh, mu nekk muy liggéeyee fi nga xamante ni mooy Senelec bokk ci syndicat bi di syndicat unique. et démocratique des travailleurs euh, de l'énergie léegi euh, xam nga Lamine euh, invitation bi li ko gën a waral nag bokk na ci benn contrat boo xamante ni tey ñoo ngi koy wax diggante seen lekk ak euh, ak Akilee soo gisee tamit sànq ñu laaj la ñaata at nga def Senelec mooy dañuy bëgg xam tamit xam nga li nga fa def plus de trente ans. Mm-hmm. wax dëgg yàlla xam nga euh, Senelec. Mm-hmm. xam nga ci lu baree bare. Mm-hmm. léegi contrat boobu nga xamante ni Lamine euh, ñoo ngi koy wax diggante Senelec ak euh, Akilee yéen seen syndicat bi kañ ngeen ko yëg ak lan nga ñu mën a expliquer ci contrat boobu. waaw contrat bi en fait ñun ñu ngi ko yëg mu leer. en deux mille dix huit deux mille dix huit daal la ñu yëg ne Senelec kat am na contrat bu muy waaj a joxe bañ ko yëgee ñu ne ci li ñu ci jot a dégg parce que contrat bi xam nga ñoom dañ koy nëbb mais du ñàkk comme yow syndicaliste nga nga fexe gëstu ba for ci dara mais li liñ ci jot a for darul. ci biir boîte bi waaw ci biir boîte bi parce que société ak nu mu mën demee surtout yu mel ni Senelec am na ñoo xam dañu bëgg seen réew. di liggéey ci biir kër gi xëj na sax yor ay responsabilité même duñ mën a wax mais dañuy fexe duñu mën a wax mhm. mais mën nañu fexe nit ñi xam ñu ne dee leen ne leen ah li may gis de baaxul loolu boo demee ci société yu mag yëpp daf fay am daf am na ñi nga xamante ni ay patriote lañu dañu bëgg seen dëkk léegi ñun bi ñu ci jéggee dégg dara ñu def réunion décembre deux mille dix-huit bi ñu réuniree ku ne ne man jot naa ci li man en tout cas li baaxul ñu ne kon nañu bind benn kayit bi ñu bindee benn kayit ñu wasaare ko wax Senelec ne contrat bi ñuy dégg fa mu jëm baaxul et ñun duñ ci d'accord décembre 2018 laa la wax. janvier 2019 liñ ci dégg baaxut wala dañoo bëgg a jot ci contrat bi. non non li liñ ci xam nga xam nga xam nga nit buy waaj a def dara nga jéebaane ko dana taxaw. d'accord loolu lañ ci jublu woon wax leen ne la ngeen di war a bëgg a ñun gis nañ ko. te ñu ngi leen ñi ñu ngi leen di bàyyi xel duñ ko nangu. Mhm. pour que ñoom ñu taxaw. d'accord ba ñu war a kayit bi ci décembre bi comme ñun syndicat bi nga xamante ni yàlla dafa def suñuy sart dañ ne politique bokku ci bu kenn wax politique kuy politique na nga dem fa ngay politique nga politique. te décembre deux mille dix huit buñ ko génnee ci fin décembre donc dafay déclaration bi ci janvier bi lay tombé janvier bi campagne électorale bi démarré na. te bu ñu génnee këyit ci biir campagne électorale di ŋàññ dara li nga xam dafa jot ci nguur gi dafa mel ni dañuy faral opposition may leen bunt bu ñu ko songe ñu ne kon comme ñun duñu ñu politique nañu bàyyi ba campagne bi jeex bu campagne bi jeexee lépp lu ñuy wax ñu wax ko ñi ne duñ ko def ñi ne dinañ mais majorité bi ne daal bàyyi leen noonu parce que si ñoo dañuy taqal suba ne ñun dañuy politique ñu bàyyi bi ñu bàyyee njuumte bu ñu def mooy xalaatuñu woon ne contrat bi nit ñi danañ ko signé ci biir campagne bi ci biir campagne électorale bi nga xam ne wóorul sax ne Macky Sall dana gagné le 11 février 2019 ci lañ signé contrat. mais mais euh, Lamine. Mm yéen bi ngeen ne réunion noonu. Mhm. ci mm bi. Mm yéen ci seen biir kenn ku nekk wax lim xam jot a xam ci ci contrat bi. Mhm. ñii ne nañ ko fësal ñii ne nañu bàyyi noonu est-ce que réunion boobu noonu euh, direction générale bi yëgoon na ko. non réunion bi syndicat la. syndicat bi mais xam nga syndicat xam nga direction générale bi mën na ko bañ a yëg. parce que ñun bu ñu toogee suñu biir waxtaan li ñuy fësal après lañ koy fësal mais bu fekkente ni dara seenul ñun mën nañ tëju ci nekk génn te kenn du xam lu ñu wax. ah réunion boobu direction générale bi yëgu ko woon. déedéet syndicat que suñu yëf la yëfu syndicat la du yëfu direction générale. xam nga euh, comprendre naa ne yëfu syndicat la. Mhm. mais yéen ni ngeen def bay am yenn information yi. Mhm. syndicat bi tamit. direction générale direction générale bi mën naa fexe. ba am ci ba am ci information. loolu dafay am sax ndax xam nga tey par exemple tey yéen seen syndicat bi. Mm-hmm. xam nga yéen kese nekku leen fa ci syndicat. Mm-hmm. te yow mën nga am xarit. Mm-hmm. ku nekk ci beneen syndicat. ngeen waxtaan ci. kooku mën na ko wax keneen ba mu egg si direction générale bi. mais loolu amutoon. loolu yow amutoon. non c'est vrai loolu moom mënumaa wax ne am na ko wala parce que direction générale aussi bu ko yëgee du la ko wax. d'accord léegi euh, contrat ñu ci lañ ne ñu wootewaat réunion ne gars yi de signé nañ contrat bi donc nañ leen fexe jéebaane leen fexe ba ñoom ñu jox ñu contrat bi ñu xool parce que am na lu ñu ci jotu a gis bi ñu bi ñu commencé wax loolu directeur général ba fi nekkoon am sunu naataangoo waa Sutelec gi dem fa ne ko contrat bi ñuy dégg lañu bëgg xool mu ne leen léegi dama dinaa leen woo yéen njiitu syndicat yi ma wan leen contrat bi ci mars bi la woon vers vers vingt neuf mars yooyu danaa leen woo mu woo leen ci début avril ci benn hôtel toog ak ñoom toog ak kii moom contrat bi ne leen lii mooy contrat bi commencé leen expliquer bi mu leen ñoo ñu ne ko contrat bi gudd na gudd bi nga xamante ni du di waxu benn fan mooy tax mu leer dañu bëggoon nga nga organiser benn atelier ñu dem sali bu ñu demee foofu ñun ñëpp ñu toog ñu def ñetti fan ku nekk la nga war a laaj nga laaj ko mu ne baa d'accord naa mais ba muy wax d'accord naa moom ci semaine bi lañ ko fal ministre ba muy wax d'accord naa ñu def ko kon moom signé na contrat bi ba pare def na lépp ba pare ñu ñu defal ko promotion def ko ministre donc moom dem na nekkatu fi. moom Makhtar Cissé moom Makhtar Cissé. mais beneen ndaje mu njëkk moom moo ko présidé woon. ndaje bu njëkk bi moom moo ko présidé woon. mais boobu amoon nay laaj ak yooyu. waaw boobu laaj yi soriwul. parce que xam nga nga ñëw rek ñu ne la contrat ngi nii te parce que contrat dafa laaj gëstu tamit bu ñu la tegalee lu bees sa bët il faut yow nga gëstu ko te gëstu bi tamit il faut nga dellu ci ginnaaw ña la yebal ku nekk wax ci sa xalaat donc xatoon na xat bi nga xamante ni juróomi nit ya fa nekkoon secrétaire généraux yi. mënuñu woon wax li nga xam dafay engagé organisation syndicale yi il fallait que ñoom ñu ne leen bàyyi leen ñu da di jël ñu jël temps ñu ànd ak ñeneen nit ñu toog doog a càmbar contrat bi ci lañ ko defee. au mois de mai ministre waaw ministre léegi bu ministre bi waa ji demee ñu def ko ministre de l' terewul la mu sàmmonte woon danañ ko def ñu def ko le 2 mais deux mille deux mille dix neuf ci lañ ko def syndicat yi dem ñu daje fa. mais ki représenté woon directeur général moom mooy secrétaire général c'est-à-dire ki toppoon ci moom Matar Cissé kooku moo fa toogoon parce que hmm. kayit yi ñu signé kooku sax moo signé ci place am donc mbir mi daal contrat bi foofu lañ ko amee mu leer. d'accord léegi léegi Lamine. Hmm. Euh, yéen hmm. contrat bi lan moo ci nekk loo xam ne jàpp ngeen ne ay léexoor la baaxul ci réew mi baaxul ci Senelec baaxul ci yéen ña fay liggéeyee. waaw xam nga xam nga déjà euh, dama bëgg leeral lan moo dugal Akilee ci biir ba pare Senelec lan la ci jublu woon bay signé contrat parce que booy dem bay signé contrat dafa am loo yaakaar ne war na la ko mën a yokkal li nga xam dafa doxul ci yow moo tax nga ne xaaral ma ma créer dara li nga xam ne dina ma ko jàppale ndax sama koom-koom yéeg. Mhm. Senelec dafay defar courant di ko togg di ko yóbbu di ko jaay léegi nag bu fekkente ni defar na courant mu génn ci machine yi. mu dem ba client yi fay mu xool moom la mu génne woon ci courant pour jaay ko ak la dugg ci xaalis dafa am différence bu xaw a rëy par exemple ñu ne ñaar fukk yu nekk fukk ak juróom-ñaar yi dafa naax saay xamul fan la jaar. Mhm. xam loolu xaalis bu bari la. xaalis bu bari la. léegi Senelec ne il faut ma xool xaalis boobu. fan lay jaar diggante bi ñuy defaree courant ak diggante ak fa nit ñuy fayee courant bi ñu defee loolu. ñu njëkk a xool ne diggante machine bi fa courant bi génnee ak ca post courant bi ba bala muy dugg ci kër kër client ba diggante boobu. fan la xaalis bi tagee daal. waaw mhm. parce que courant bi dafay jaar ci ay fil. Mhm. dafay jaar ci ay post courant. Mhm. dafay jaar ci ay matériel ba taxaw ci buntu kër waa ji. ñu ne lépp luy perte foofu moom la ñuy tuddee perte technique. kooku mooy perte technique. ñaata perte moom am si Senelec perte technique ak lan. dafa am perte technique beneen bi ci laa bu xasee yegg si ci buntu kër waa ji dugg ci biir kër gi bu ñu calculer foofu aussi ñàkkaat nañ ci xaalis loolu la ñuy perte non technique perte non technique bi li ko mën a indi bokk na ci compteurs yi baaxul comme ñu teg ay compteurs yi xam na compteurs yi xam ne la ñuy li ñuy relevé di ko facturer méngawul ak li waa ji consommé xam loolu seen lekk da ciy perte. Hmm. ñu ne tamit fraude bi. fraude bi ci perte technique la bokk fraude bi jégg na dayoo ñu ne mën na am ni ñuy facturer tamit bu baaxul dafay feeñ ci ci alalu Senelec donc loolu yëpp boo ko boolee moom mooy perte non technique Senelec donc xam na ne xaalisam ci diggante yi la ko perte perte technique perte non technique léegi nag akili akili foofu la duggee akili foo foofu la duggee parce que Senelec li ñu xamul mooy li nit ñi di wax naan Akili moo indi xalaat boobu moo indi xalaatu ñu fexe ba perte yi ñu wàññi ko perte non teg perte non technique yi kooku Senelec daf ci bindoon këyit en 2011 daf ci bindoon këyit bu leer wax ne perte non technique yi pour ñu ñu wàññi ko lu bari bari bari il faut ñu jënd ay compteur li ñuy wax compteur intelligent yi ak lii di wax xam nga boobu nguur gi fi sax nekk nekkaguñ fi. Mm-hmm. donc Senelec xalaat boobu amoon na ko xalaat boobu amoon na ko ba commencé sax jënd ay compteur kon ci perte bi c'est bien avant. waaw sa à perte bi c'est bien navant perte bi dafa a nekk fii sax Sénégal li muy fonctionner yëpp dafay sooxaaleeg perte boobu te euh, Sénégal dafa dafa jëloon benn cabinet nekk léegi calculer ma perte yi ak nu may def ba mu deñ parce que xam nga liggéey société bu mag parfois du am jotu trop toppatoo yenn yi. Mhm. da ngay jël benn cabinet. nga ne ko liggéeyal ma lii nga indil ma léegi nag moom li mu lay liggéeyal jox la ci xalaatam ngeen toog réfléchir ci ngeen xam yéen ban politique ngeen di def pour génn ci cabinet bi bi mu defee liggéeyam ba pare daf ko wax ay yoon bokk na ci yoon yi perte technique yi mooy li jógee ci centrale ba ba ci buntu kër waa ji ay pexe yi xam ne war nañ koo mën a lal bu bu xasee ñëw ci kër waa ji nu ñuy def ba perte yi nga xamante ni dafa ci facture la ak perte non technique mm-hmm. nu ñuy def ba wàññi ko donc loolu Akile ci boppam mm-hmm. ki ko jiite mm-hmm. dafa bokkoon ci ñi nga xamante ni cabinet boobu cabinet boobu fa la doon liggéeyee moom donc gëstu na xam na problème yi Senelec am ba ñu jébbal kayit bi Senelec pour que Senelec doxal liggéey bi ci loolu ci la rocceeku moom parce que xam na problème yi. Mm-hmm. ci la rocceeku créer société ne nañ ko jox moom mu liggéey ko alors que comme ni ma la ko waxee sànq Sénélec. te li ko Sénélec doon gëstuloo Sénélec information la si soxla woon. ak nan lay def ba saafara wu. léegi te Sénélec am na ñu ko mën a saafara si ñu ne. Sénélec am na ñu ko mën a saafara parce que loolu dama lay wax ne 2011. bi mm-hmm. bindoon na këyit bu leer. Mm-hmm. bu wax ne il faut ñu am ay compteurs intelligents. compteur yooyu mooy compteur yi nga xamante ni nit ki fu mu toog dafa am benn système bu koy permettre comme yow nii Abdou Khadre nga nekk fii nekk mm. société bu mag ma teg mm. fi benn compteur sa compteur ni muy doxee dama koy gis fi ma toog mm-hmm. bu facture jotee fi ma toog mën naa laa facturer mm-hmm. boo defee ni dul naka si dul noonu compteur bi daf ma koy siñaale mm-hmm. ba pare yow mën naa laa dimbali na ngay consommer sa courant ba yenn période yi muy cher machine bi dafa ma koy wan compteur bi ma ne la soo bëggee sa facture wàcc il faut nii nga koy consommer nii nga koy consommer donc conseil compteur bi dafa may dimbali dama lay dimbali sax yow client bi nga xam naka ngay conseil koo bëgg a couper mën nga toog foo couper ko aussi. fi may couper fi may toog mën naa laa couper mën naa laa remettre tamit. Mhm. compteur bi loo ci laal moom dama koy su ma duggee ci benn système dafa may wan ne. te bu boobaa dem euh, fay euh, facture wala nit ki kenn dootul relevé ti kon aussi. voilà kenn dootul relevé ti yi day kii donc pour wan la ne xalaat boobu Senelec amoon na ko mais jamono jooju 2011. sànq nee naa la mooy jamono yu gën a tar ci Senelec mooy temps wu nguuru Ablaye Wade nga xamante ni courant Senelec da daan perte Senelec loolu amul woon moyen pour développer ko mu gis ay partenaires yi nga xam ne pare nañ pour financer ko muy banque mondiale muy euh, euh, euh, AFD agence française de développement muy KfW benn coopération allemande. Mhm. ñoom ñëpp pare woon nañu pour jàppale Senelec ba jox ko xaalis ba Senelec commencé jënd compteur mu jënd cinquante mille compteurs intelligents cent cinquante mille compteurs ordinaires donc compteurs intelligents yi commencé woon ba pare jox ko benn plateforme benn plateforme de mesurage. bu ñuy wax mhm. ami. Mhm. kooku moo doon kooku mooy li nga xam da koy teg boo ko tegee dalay lay permettre mu nekk liaison entre yow ak compteur bi. ci loolu lay jaar pour que yow yéen yow nga mën di wax ak compteur. d'accord léegi euh, Lamine. ñu def benn résumé bu ndaw. su ko defee jàll ci euh, contrat bi. Mhm. léegi kon mbokk yi nga xamante ni yéen a ngi déglu Rewmi FM léegi ñu leeral comme li Lamine wax li nga xamante ni tey moo tax ak li euh, ak li am. Mhm. ak lan lan lan ban problème la Senelec amoon. Mhm. ba woo benn cabinet. Senelec da doon def ay perte. te xamul perte bi. fan la jugee mhm. ni mu koy toggee la ba ci post bi la mhm. wala post bi wala ba ci bala ba ci kër gi la mhm. muy ay perte technique ay perte non technique non technique mooy peut-être ni ñu bindee facture bi ni ñu koy relever wala ay fraude léegi bi Senelec loolu ump ko te ay milliards la amul jotu def xayma boobu mu woo benn cabinet pour mu liggéeyal ko ci loolu cabinet boobu nag ki nga xamante ni tey moom moo jiite akeli moom dafa bokkoon ci cabinet boobu. Mhm. bi mu demee ba nga xamante ni moom euh, ñoom saytu nañ xool perte bi fi mu nekk xool li xew biir Senelec lépp si la dem rocceeku dem créer Akilee. Mhm. ñëw na ko nag bëgg naa gañe marché bi nga xamante ni moo jëm ci dindi compteur yi nekk ci Sénégal yépp. Mhm. def fi ay compteur intelligent. compteur intelligent da ngay toog fi nga toog man koo relever man a euh, couper nit ki man ko wax na ko nii ngay yaxanalee sa courant. mën a identifier ku si bëgg a def luubal nga toog fi nga toog xam ko fi ba perte yi mën a saafaraw mm-hmm. mi noonu la demee je pense que Lamine waaw noonu la demee d'accord léegi nag contrat bi mm-hmm. Lamine euh, ki moom Akili mm-hmm. euh, bi mu yollee koo dem créer Akili dafa ñëw signer ak waa Sénélec contrat pour def liggéey boobu noonu léegi euh, contrat bi après euh, ci biir signature bi xam nga signature contrat tamit kenn mënu koo bañ. te am na ci sañ-sañ aussi. lan moo tax yéen lan moo leen ci naqari. bon liñ ci naqari mooy xam nga déjà dañ ne moom filialu Senelec la boo ñu xoolee ci ci ci oada article cent soixante dix neuf man nag du ma am de droit mais li ma sama gëstu may laay wax cent soixante dix neuf article cent soixante dix neuf bu OHADA dafa wax ne filiale. mooy société ba nga xam ne capitalam li ci ëpp lu ëpp cinquante pour cent société mère bi moom moo ko moom c'est-à-dire que tey jii buñ ne Akilee filiale la Akilee mënul am lu tolloog cinquante pour cent ci capital bi capital bi société mère bu boobaa Senelec lay doon Senelec mooy ëpp doole Akilee doog a jël beneen part mais bu ñu xoolee ci contrat bi maanaam ah, maanaam euh, Senelec mën naa am soixante pour cent wala soixante cinq pour cent Akilee am li si des mais c'est anormal Akilee am plus de soixante pour cent wala cinquante pour cent waaw xam nga pour tënk ko mu leer mhm. parce que ñi ñu waxal xëj ñu si bari duñu technicien mhm. boo boo tekkee baatu mère ak filiale mère mhm. ak fii yaay ak doom bu jigéen yaay mënul jël yaay mënul mag doom bu jigéen mënul nekk yow yow sa doom moom maanaam doom ji mënta mag yaay mënul mag yaay mënul nekk donc buñ ko doon tekki noonu lañ koy tekkee te ci contrat bi Senelec 34 pour cent la am ak am 66 pour cent. te loolu yoon daf koy tere. non loolu bon man du ma gëstukatu droit mais li ma wax ci droit li nekk ci biir OHADA mooy organisation des euh, harmonisation des affaires au niveau de de l'Afrique de l'Afrique occidentale léegi foofu loolu lañ ci bind te boo duggoon ci net bi sax de définition yi ngay jot yépp loolu loolu lañ lay jox te bu ñu tegee fële sax affaire définition bi. Mhm. man Senelec man maa am ay client man maay defar courant man maa am sama problème. yaa am personnel. man maa am personnel. lan mooy ndeyu may jël li ëpp ci affaire bi di ko jox benn nit boo demee France ñoom am nañu lu mel ni ak leen nii lu tudd Enedis nga xamante ni seen société courant moom moo ko yor dafa créé benn filiale bi nga xam ne filiale bi moom moo ko moom. Mhm. ëpp ci doole. Mhm. di leen wax lan la ñu war a def ak lan la ñu warta def ça veut dire que bénéfice boobu ci société bi lay si mhm. léegi bii nii ak lii si am. bii nii xam nga bii li ci luub dafa bari bari bari Abdou Khadre. Mhm. déjà Akile li njëkkal normalul moom mooy moom mu am 66 pour cent xam nga loolu du yoon deuxième bi Akile ne léegi man da ngeen may jox ma teggi compteur ci Sénégal yëpp indil leen ay compteur fi ak dix ans muy deux millions sept cent mille compteur ak il defarul compteur fa Senelec daan jëndee compteur dafay dem jëndi foofu compteur ñëw indil la jaay la ko teg ci bénéfice am. loolu commerçant yi kan mooy kan mooy teg euh, compteur yi. ak il dafa am personnel bu koy teg fa jëm xam nga léegi. yow da nga daan jënd ma ne toogal man maay jënd jaay la tekki sama bénéfice ñëw jël loolu bénéfice bu li ñu naan xobet xobet. boobu maanaam ma ngi mel ni compteur yi Senelec doon ko jëndee marché HLM. waaw. Akilee tamit marché HLM la koy jëndee ji. voilà noonu la. d'accord mais la ko Senelec doon jënde HLM loolu la ko Akilee. déedéet Senelec Senelec bu ko jëndee woon ni ko ni ni ko état bi permettre Akilee jënd ko Senelec dina ko jënd gën a yomb te dinaa la dinaa ci dellu siwaat foofu loolu moom mooy mbirum compteur bi. ñu ne encore par exemple tey su ma ne la Abdou Khadre dama lay jaay compteur fii ak fukki at compteur bi lii lay jar damay jël exemple ci sa portable bii tey. Mhm. portable buy doog a génn. Mhm. mën na jar deux cent mille. Mhm. fii ak fii ak juróomi at dana jar deux cent mille. déedéet fii na ko. day fekk dépassé nañ ko. féeg weer rek mën naa bañ a. day day wàcc parce que. technologie bu ah, taxaw bii doon bii ma lay wax nii nii cent quatre vingt dix ne nii boo amee cent quarante da nga koy am. mu ngoog xam nga loolu yow ma ne la li ma lay jaay fii fukki at loolu laa la koy jaaye alors que te leneen leneen mën naa ñëw. non non fii ak fukki at compteur yooyu day wàcc ba am na yeneen yu bees yu gën a performant dëgg la dëgg la yu gën a performant ma ngi mel ni dangay jënd say lampe wala say karo ñu toogaat ay at nga soppi ko technologie bi du taxaw mhm. day dem yoonam mhm. yow nag la nga nar a jënde fii fukki at moom nga koy jënde ba pare ma ne la yow amoo droit fépp ci biir Sénégal amoo droit teg benn compteur bi nga xam ne du man maa la ko jaay même buñ la ko mayoon amoo droit teg ko même bu fekkee ne da nga am usine buy defar ku ne Sénégal may naa leen tant de compteur yow benn compteur sañoo ko teg ci Sénégal ci yëg fukki at man kese maa lay jaay ba pare nag xam nga lu doon yoon mooy boo ma defalee loolu ne ma fi ak 10 ans dañu war a topp njëgu compteur bi su demee ba ay at ñu gis na compteur bi wàcc ñu toogaat discuter. ne la ah compteur bi wàcc na nañu réviser prix bi. Mm-hmm. mais nekkul ci contrat bi. contrat bi dañ ni li nga mooy am dañ ne la fii ak at. Mhm. contrat même prix bi la prix bi la du bouger moom la ñu amul révision tarifaire ci contrat bi yëpp amul révision tarifaire révision tarifaire mooy ñu dem ba si yàgg ñu waxtaanaat. mais technologie day gën technologie day gën di avancer. sax waaw xam nga boobu boobu moom mooy njub njub mooy compteur bi loolu moom xaalis xobet xobet la bu taxaw. Mhm. ñaareel bi ak li ci contrat bi mu ne compteur bi dafa am lu muy àndal man compteur bi ma lay jaay maa lay defal coffret bi ñu koy def. coffre yi nekkoon si kenkeer yeeg yooyu voilà coffre yi nekkoon xam nga buntu kër yëpp Senelec dafa la wax léegi pour ma installer la da ngay génnee coffre bi ci mbedd da ngay nga ut sa disjoncteur mhm. ut sa court circuit mhm. yëpp nga monté ko ak lineer yooyu yëpp man maa koy indaale léegi léegi euh, kenkeer yi kenkeer yi ñoom bu yeboo ñu xam ni ñuy def seen i seen i mbir loolu moom kenkeer yi dootu fi jaay compteur dootu fi jaay disjoncteur dootu fi jaay coffre mhm. donc kooku marché la ci biir marché deux millions sept cent mille coffre yi xam ne akile da koy jëndiwaat ñoo jaayaat te xam Akilee dafa ne investissement am la mais la muy jël noonu coffre yeeg disjoncteur yeeg yooyu yëpp bu ñëwee installé ko ba pare dafa ne Senelec programme bi ma lay tegal dana jur bénéfice bénéfice bu bi bu amee li ñuy njëkk génnee mooy man la ma dépensé woon ci ay coffre rek ma koy delloo. Mhm. coffre yi ba ma leen jëlee à l'étranger di leen indi paas ba ma leen di paasal rek ma koy delloo. Mhm. yaa ngi dégg. Mhm. coffre yi bu ñu xasee ñëw ba port ak compteurs yi ak li ne pare naa ci Senelec yaa koy transporter yaay ut foo koy stocké yaay ut ku koy garder lépp Senelec yow yaa koy gàddu moom pare na ci yow yaa may jaay commandé naa yow yaa def sa commande da ngay ñëw commandé stocké sa magasin di ma livrer mais Akilee du livrer mhm. du fay transport du fay magasin du fay gardien ci contrat bi dafa ne Senelec yow yaa koy jëlee port yaa koy def ci magasin yaa koy garder ca ca ca Saliba laajoon nañ ko ko ne ko yow pourquoi utoo sa magasin bopp mu ne ah pourtant xalaatoon naa ko lan moo ko ci génnee kon pourtant xalaatoon naa ko la wax. waa waaw d'accord mais xam nga lan moo ma jaaxal Lamine. Mhm. Euh, lii nga wax nii moom. Mhm. Euh, wax dëgg yàlla bu dee mbir mi moom nii la demee teg teg textuellement. Mhm. ma xam ne maanaam doy na waar genn xeetu doy waar goo xam ne man mosuma dégg. maanaam lu mel nii. ndax damaa xam ne tey. Euh, bëri na ay sociétés yoo xamante ni tey dañuy dem wuti ay cabinet mhm. pour ñu auditer leen mhm. wax leen problème bi mhm. ñoom am nañ ci solution ndax damaa jàpp ne Senelec ak ni mu yàggee ak ni mu bëree ay techniciens ak nit ñu xarañ te Senelec fi mu doon jëndee compteur yi xam na ko Akilee gënu ko ko xam ne Akilee def ba jënd ko ba ndi ko poor nu ko raw Senelec manee na ko noonu yi amul personnel. te Senelec am na personnel boo xamante ni tey Lamine boo ko joxoon mën na laa monter compteur bi. Mhm. mais léegi lan moo tax loolu lépp. wala Senelec dafa amul personnel boo ko defal loolu. non xam nga Akilee déjà posé compteur bi nga wax ci contrat bi Akilee dafa ne Senelec saa yi ma soxlaa posé compteur nañ ma jox ay nit ñu dem posé ma ak sama compteur <laughs> lool loolu la bind ci contrat bi dafa leer danga may jox ay nit ñu dem ñu posé ma compteur bi. mais li may moom amul moom amul amul personnel bu ko def loolu moom dafa dafa leer nañ nañ nañ ne moom amul personnel bi te ñoom xam nga xam nga nit ñi parfois euh, dafa am ñi nga xam ne xamuñu man danaa leen comprendre mais dafa am ñi nga xamante ni dañoo xam ba pare leneen tax leen a jóg dañu ne seen way ñii ay cadre lañu yu jàngi woon ay doomu réew mi ah dañoo ñëw installer dara moo gën ñoom ñu jël xaalis bi moo gën ay étranger di ko jël et cetera mais Abdou Khadre xoolal ñaati ñaata quincailleries ñoo nekk ci Sénégal. kenn xamul nu mu toll. ku ci jaay benn coffret même bu dee 1000 francs nga ci am ci kër ga la jëm ñaata nit ñoo ciy lekk. Mm-hmm. benn ñi gënuñu laa nekk sénégalais. gënuñu laa nekk sénégalais ñetti nit la ay millions de sénégalais di jaay ñetti nit séddoo ko loolu mooy patriotisme loolu du patriotisme. xam nga tamit lemin dafa am loo xamante ni Sénégal tamit dama koy gis gars yu bëri xam naa danañ ci ñëw ci euh, maanaam ñi nga xamante ni mooy club des investisseurs gi nga xam ne am nay jafe-jafe sax mais dama jàpp ne man loo nekk-nekk nit ku ñuul mhm. loo nekk-nekk jeune mhm. contra dañ ko war a teg si dañ ko war a teg si yoon mhm. mais lii ma dégg nga wax fii loolu mayee xaalis la tudd saax-saaxee xaalis la tudd ay yenn nit mhm. bëgg a jël moomeelu askan wi mhm. la tudd ndax lii nga fi wax nii mhm. kii toog ci machine bii bu amee ñaar ñu ko xalaatal man na ko ndax contrat cent quatre-vingt-sept milliards nañ waxante dëgg banque boo mën di dem ñu lebal la xaalis lu wér banque boo dem ñu lebal la xaalis lu wér fii lañ koy jaayee yor nga xaalis nga dem yow la nga fay jëndee sax la ke la doon jëndee mooy gën a moins cher installé mënoo installé. Mhm. Senelec ñoo lay installé. Mhm. Senelec ñoo koy jëlee port. Mhm. mais Lamine loolu loolu. Ah, Abdou Khadre am na lu gën a kii xam nga moom ba muy dem ci banque yi dafa ne Senelec da ngay ànd dañuy ànd nga garanti ma ci banque yi. ah bon waaw contrat bi loolu loo ci nekk. Senelec moo garanti Akilee. Senelec moo garanti Akilee ci banque yi <laughs> ba pare xam nga sa xam nga euh, compteur yu day noonu deux million sept cent mille compteur danga war a def appel d'offre. ah appel d'offre amu ci. amu ci appel d'offre amu ci. moom dafa dem rek gis benn société wax ak moom tey jii Senelec Senelec état bu ko permettre woon moom mu jëndi compteurs yi sans def appel doof mhm. mën na ko jëndee genn wàllu li ko ak acculé di jëndee di ko jaay hmm. waaw bu ko Séné bu ko état bi permettre woon ne ko léegi demal nga signer contrat ak benn société fii ak dix ans mu lay jaay compteur yii bu boobaa Senelec dana wax ak moom ba nga xamante ni compteurs yi lu muy gën a wàcc sur le marché mondial day gën a wàcc encore pour Senelec Senelec dina ko am lu gën a yées fuuf fuuf fuuf li ko waa ji jaay mais waa ji amul appel d'offre dafa dem ñu permettre comme mu dem jëndi signer benn contrat de de de de. waaw nu mu tudd sax euh, deux millions sept cent mille compteurs. d'accord mais mais mais euh, cent quatre-vingt-sept milliards. waaw mais euh, Lamine. Mhm. mbokk yi ñu fàttali ne yéen a ngi déglu euh, Rewmi FM seen émission pencum réew bi muy am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h xam nga Lamine. Hmm. fi mu ne nii responsabilité bi. Hmm. Euh, nii nga ko waxee nii. Euh, te man nii laa déggee contrat bi. Hmm. ci ñu bari ñoo xamante ni tey jàpp naa ne xam nañ ci dara. maanaam responsabilité bi <clears throat> du ci Akilee. ndax Akilee <clears throat> peut-être tey. bu dee ay papier yu légal pour mu nekk société. am na ko. bu dee war a gagner marché. am na sañ-sañ gañ a marché kenn mënu koo tere gañ a marché soo nekk ko woon sax lu mu gën a lu gënoon a yomb sax akali moom jàpp naa ne amu ci benn part de responsabilité mais akali ñim ko séqaloon mhm. Makhtar Cissé mi nga xamante ni tey moom moo nekkoon directeur général bu Sénélec mhm. mais Sénélec tamit am président conseil d'administration mhm. ci euh, am ba pare conseil d'administration représentant euh, ministère de l'intérieur ministère de l'énergie ministère des finances. Mhm. du budget. Mhm. caisse de dépôt des consignations. Mhm. contrôle financier. mais ñoo ñëpp est ce que amuñu si part de responsabilité. waaw xam nga loolu moom responsabilité il faut mu am bu dara amee bu dara amee mais responsabilité ki koy situé moom mooy ña war a gëstu affaire bi. moo tax tey damay saluer suñu camarade cherche sama cadre yi seen syndicat dañoo dem saisir corps officiel yi. corps officiel yi. képp ku ci sa responsabilité taq dinañ la déglu. Mm-hmm. parce que tey jii bëgguma ŋàññi ma Samba wala ma Demba. kon kon kon kay euh, corps de contrôle yooyu off nag la ñu saisir ñoom ARMP cour des comptes. voilà ñoom ñëpp saisir nañ kon ñooñu danañ saisir co euh, conseil. bu ñu defee seen liggéey ku ci nekk daañ la déglu. Mm-hmm. lan mooy sa part de responsabilité. ci contrat mm-hmm. bu boobaa ku ci nekk danga nga tontu. danañ xam ku ci nekk sa sa sa degré de responsabilité ci lii taxaw. moo tax man. bugguma citer Matar Cissé bugguma citer keneen bugguma citer keneen dama ne rek lii am na ay responsabilité parce que tey jii dañuy wax ne Senelec am na ñu fa nekkoon ba ñu signé contrat bi ña ngi fa nekkoon wër ko wër Matar Cissé jàppale ko mu def loolu. nekk ay directeurs généraux. nekk ay directeurs quoi ci biir Senelec. est-ce fa ba léegi nii. waaw ña nga fa. léegi ñoom ba léegi nii bokk nañ si ñuy ŋàññi contrat bi wala ñuy ànd si contrat bi lañ. waa am na ñuy ŋàññi contrat bi mais dama bëgg société ni muy doxee. responsabilité société la responsable morale bi mooy directeur général. directeur parce que tey jii euh, ba Senelec soqalikoo ba courant coupé tul ku ñu daan dégg. directeur général. directeur général la ñu daan dégg Macky Sall président Macky Sall bu daan wax ne li mu réaliser pour Sénégal bokk na ci courant bi ku muy tudd Matar Cissé. ba promotion amee ku ñu jox promotion. Matar Cissé mhm. Matar Cissé loolu mu daan am. ña ko doon jàppale ci suuf kenn xamu leen ay directeur lañ mais dégguñu leen. bu luux mbóot amee aussi moom mañ daan dégg naka yenu ba pare buy taxal keneen mu taxal keneen. dëgg la man loolu moom mooy sama sama gis-gis. parce que comme bu tàccu amee yow la ñuy tàccu bu daanu amee. danga ko assumer maintenant ne corps de contrôle yi. Mhm. bu ñu ñëwee ñoo ñu ko wëroon ku ci nekk daañu la déglu ci li ma yaakaar laaj la. yow lu tax bañ tollee fii defoo lii lu tax waxoo lii est-ce que waxoon nga waaji li est-ce que waxoon nga waaji li mais a priori même Matar Cissé ah la a di présomption d'innocence hmm. mënuñu ko condamner tant que nit ñi dégluwuñ ko parce que ba léegi moom ngaangu ci keneen ngaangu ci mais ñun lu ñu soxal moom mooy lii nii nii du li nga xamante ni njëriñu Sénégal la te am dafa am beneen aspect ci ci contrat bi nga xamante ni kenn du ko tudd te moo ëpp xaalis encore boobu beneen xaalis la c'est-à-dire bi lépp xaalis la gis nga gis nga Akile dafa ne Sénélec perte technique yi ma la doon wax xam nga loolu ma la wax sànq yëpp ci perte non technique la jëm. Mm-hmm. léegi dafa am perte technique perte technique bi Sénélec ba mu waxee cabinet boobu defaral ma ay étude ci ci transport bi maanaam courant bi fu mu gën a magee deux cent vingt cinq volts quatre-vingt-dix cetera. ak ci distribution bi six six mooy bu fay buy jóge ci post yu ndaw yi ñëw ci kër yi. lam fay perte nu may def ba mu deñ cabinet bi wax ko yoon. Senelec commencé programme boobu boo xoolee perte technique yi am na benn tableau bu ñuy wane perte technique yi depuis at yële passé ba léegi da gis ne day gën a wàcc surtout deux mille dix bii dafa gën a wàcc ça veut dire que programme bi Senelec mi ngi koy dawal di dem ak ne. léegi perte technique bi bokk na ci li nga xam ne dinaa leen ko liggéeyal ni ma leen koy liggéeyal mooy su ma toogee ma ne leen damay teg benn compteur ci benn post courant compteur bi dafa may wan courant bi ban moment lay yéeg ban moment lay wàcc est-ce que dafa chargé trop après ma ne leen transformateur bii nekk ci compteur bi changé leen ko ngeen teg ci beneen. Mhm. te ci contrat dafa ne la ma leen wax na da ngeen koy def su ma leen ne changé leen da ngeen koy dindi. yéenay jënd ah, teg waaw loolu la bind. ne su leen ne changé leen bii rek da ngeen koy changé ndax moo sëpp doole si si contrat bi waaw non non c'est-à-dire contrat bi mu signé côté côté non côté technique bi xanaa beneen contrat mu signé waat foofu waaw c'est-à-dire ci contrat dafa am benn aspect xam ne moom mooy les pertes non techniques mm-hmm. xam nga contrat dafa féete fële mm-hmm. mais lépp ci biir contrat la nekk mais bii dafa na naan euh, fële kat transport bii nekk fii castor jëm ci kaw transport bi ñi ci ñi ci alimenté dafa bari yenn moment day tàng da ngay perte courant dindi ko nga teg bu gën a doole wala nga teg beneen poste. Mhm. te ci kon daf lay wax su ma la ko waxee danga koy war a def. Mhm. yow doo ko jënd moom mooy euh, Senelec mooy jënd def indi personnel am teg li mu wax. mais loolu muy wax ne nag Senelec def cabinet bi daf ko bindal Senelec ba Senelec nekk ci programme boobu ce qui fait que ëllëg bu ñu gisee ne ah fii kat lañ fi doon perte wàññeeku ne mu ne man maa ko def de parce maa leen waxoon def leen ni alors que loolu mi ngi na programme boobu. Mhm. xam nga li ma la. xam naa bu baax a baax. léegi nag moom ci loolu la profité mu ne lépp lu ma leen wax rek même bu ñëwee ne secteur bii kat man li ma fi gis li ñu perte dafa bëri fraude Senelec indi leen ay nit ñu dem xooli moom du indi nit de ci contrat bi dafa wax Senelec su ma la ko waxee rek automatiquement da ngay indi ay nit ma yónni leen ñu dem dindi dindi seet fraude bi fan la moom du yónni nit amul personnel boobu personnel Senelec lay wax dem leen ngeen mhm. seeti fraude bi ngeen indi ko donc ci perte technique boobu moom mu ne dañuy xayma 2004 ba 2017 Senelec perte bi nu mu tolloon te xam nañ ne 2004 ba 2017 Senelec réseau bi baaxul woon. dafa hmm. màggetoon li mu doon perte ci courant ndax fi muy jaar dafa dafa doy waar. Senelec bi ko waa ji defalee cabinet cabinet bi ko defalee mu defa plan yeesal 2016 2020 commencé changer affaire yi perte yi commencé wàññeeku moom dafa ne dañuy natt 2004 ba 2017 la Senelec daan pert ñu natt léegi li mu gagné ñu xam ne moom moo indi. Hmm. alors ko du noonu. Hmm. moom indiwu ko fi. Senelec mi ngi ci programme am. léegi lim ci indi dafa am lu mu ci am moom. waa léegi buñ ko indee ñu xayma ko ñu ne ah Senelec kat daan na perte lii pertatu ko Akilee moo tax loolu ñaata la ci xaalis ñu xayma ko buñ ko xaymee mu ne benn partie xaalis bi da ngeen ma koy jox lépp li ma investiroon ci ci ay transport rek ay ay coffre ci laa koy jël da ngeen ma koy rembourser. moom mooy la partie fixe ci bénéfice bi lépp lu ma defoon jënd kofre paasal ko bato wàccee ko Sénégal jënd ay disjoncteur yooyu yëpp ci xaalis bii laa koy jël investissement ya ma defoon yëpp ci bénéfice bii da ngeen ma ciy jox loolu mhm. li si des nag ñu doog ko séddoo li si des noonu mhm. ci xaalis bi mhm. d'accord ci lañ koy séddoo. d'accord mais euh, euh, Lamine euh, yow yaa nekk nga nekk Senelec ci syndicat bi di SUTE. SUDETEN SUDETEN léegi Lamine. pour askan bi tamit comprendre contrat bi nga xamante ni tey Senelec signé na ko. ndax man jàpp naa ne li nga ci wax maanaam muy wut cabinet pour xoolal ko lan moo xew. Mhm. jàpp naa ne liggéey la boo xamante ni bu rafet la bu mhm. Senelec def. Mhm. Euh, cabinet bi nag bu dee nit doyloo na la ba def loola audit wala mu càmbarloo la ba nga hmm. càmbar ko ba indil ko ay résultat hmm. na ko lii ak lii kat soo ko defee solution mën naa am hmm. léegi li ma bëgg xam muy liggéey bii di Akilee di def nii est-ce que Senelec mënoon na koo defloo ay employé am ak yu nekk biir Senelec te du ko signé ak beneen société bu nekk ci réew mi wala bu nekk bitim réew est-ce que Senelec moom mënoon na ko defal boppam Senelec war na ko mën a def mais boo xoolee adduna bi ni muy doxee société yu mag yëpp dañuy créer filiale. ah yow signature contrat signature contrat bi yow bañoo loolu. bañu moo ko mais xam la laay bañ. ah Sénélec mën na indi filiale bi nga xamante ne Sénélec. monsieur comme doomu réew mi ñu ñu wax. Mhm. ay doomu réew jàng nañ. Mhm. mais ñu jox leen lu tolloog lu ñu war a am par exemple bu dee contrat bi la. Mhm. ñu ne leen léegi Sénélec mooy moom soixante quinze pour cent. yéen am ngeen vingt cinq pour cent. nañ leen liggéey. parce que Sénélec bu fekkente ne Sénélec moo gañe xaalis. waxoon naa la ko ci ci njëlbeen ba. Senelec bu amee xaalis ba bénéfice bi bari ku ci nekk danga nga yëg sa poste facture courant dafa war a wàcc. Mhm. village yi gën a reculé ci Sénégal. Mhm. parce que léegi y a une loi accès universel à l'université à à à l'électricité. Mhm. cest que fépp fu nit nekk ci Sénégal dañ faa war a yóbbu courant. mais loolu bu Senelec te ñooñu fa ñu nekk la ñuy fay yow moom nga war a fay parce que du woon noonu bu njëkk ba. dafa am ay sociétés yi nga xamante ni ñoom ñoom dañuy signé ak ñoom contrat ñu installé benn village banque mondiale accompagner leen waa dëkk ba di fay banque mondiale di leen jàppale mu ñu demee ba mënatuñu fay waa waa dëkk ba la ñuy fay mooy ëpp kon li waa Sénégal li waa ñi nekk ci taaxu kaw yi di fay léegi président bi daal di génnee benn loi accès universel à l'université à à loolu mooy fu nit nekk la ngay fay la keneen di fay c'est-à-dire que même bu nekkee ne ñi nekk ci dëkku kaw yi courant bi pour ñu yóbbu ko fa dafay cher ak lépp infrastructure yi bénéfice bi ñuy am ci taaxukaay yi moo koy complète d'accord mais mais xam nga Lamine man contrat bi yaa ngi wax ne bu doon man na maanaam ay ndaw lañ nekk ay sénégalais. Mhm. même bu doon vingt cinq pour cent lañ ci am. Mhm. Euh, ci xel. Mhm. jàpp naa ne nit ki ngeen suñu contrat dix ans. ci ay compteurs. ak technologie ni mu mënee soppi ko. nga ne même compteurs yi fii ak dix ans même prix bi laa la koy jaayee. te ñëpp xam ne. électronique hmm. muy ordinateur muy hmm. téléphone muy caméra muy hmm. tele lum ci man di doon weer boo ci dem njëg gi wàññeeku yow nga ne ko fekk dix ans prix compteur bi ma la doon jaay moom laa lay jaay ba dix ans loolu wax dëgg yàlla jàpp naa ne xel nanguwul loolu c'est amuloo personnel yaa may jox personnel yaay fay transport bi yaa may jox garantie banque beneen bi tamit euh, ki xam mbooti Senelec ba pare ñëwaat loolu conflit d'intérêt sax mën na ci am. Mhm, ci lu wër d'accord léegi euh, Lamine. Mhm. Euh, waxtu wi euh, ma ngi jeex yéen léegi seen combat. Mhm. fan ngeen bëgg a yem fan ngeen egg ci seen combat commencé ngeen combat bi fan ngeen ci yem ak fan ngeen xalaat ne da ngeen fa yegg. waaw combat bi moom xam nga li ñuy def nii ci combat bi la bokk déjà yee nit ñi pour wax leen lan moo nekk ci biir contrat bi loolu ci combat bi la beneen bi mooy. toog nañoo ak directeur u aussi toog nañu toogaat ak moom wax ko li ñu xalaat ci mbir mi wan ko tamit ne ko ñun duñu mës a nangu contrat bi xëj na dëkk bi ak feebar bi fi nekk hmm. moom moo tax yenn mobilisation yi doo ko mën a am hmm. bu du woon loolu kon danañ def ay manifestation danañ def ay sitting hmm. danañ taxaw biir Senelec ne fii dara dootu fi dox tant que contrat bi delluwuñ ci ginnaaw. mais du ngeen dem seeti société civile bi wax leen contrat bi li si nekk. waaw xam nga société civile bi. am na si am seen xeex yéen kese de est-ce xam nañ loolu. xam nga société civile bi sax am na ñuy xamante ne commencé nañ ñu contacter pour ñu waxtaan ak ñoom ñu expliquer leen li ci biir ñu ne leen may leen ñu ñu waxtaan suñu biir après ñu jàpp dat donc ba loo loolu ba léegi ci combat bi la bokk mais combat bi c'est-à-dire réew mi la. dootul sax dépassé na seen syndicat mhm. comme parce que ñun ñu doon seetlu yomb rek ak ilee nekk feek ñàkk fi nekk ñun dañuy am suñu salaire mhm. xëj na mën nañ bësanteeg Senelec sax ba mu yokk sunu salaire mhm. kenn du ñu yëg dañu jàpp ne lii ñu bokk ñun waruñu toog di jugal suñu poos dañu war a fexe ba Senelec bu soqalikoo Sénégal gi yëpp yëg ko parce que tey ba courant bi yéegee ñëpp génn ci mbedd mi di kaas ñëpp dañoo taxaw wax ne warta warta yéeg donc ñun bu ñu gisee beneen bunt bi nga xam ne. Mhm. ci yàq mbirum Senelec la nekk. Mhm. dañ cee war a taxaw parce que ñun ñoo fi toogal waa réew mi. dëgg la maanaam bu dee ñàkk fay fay courant sax yéen moom dañ leen di tumaal naan du ngeen en général du ngeen faral di fay courant. non danañuy fay sax parce que foofu moom nit ñi dañuy. dañ leen tumaal rek waaw dañuy tumaal boo demee ci àdduna bi société boo mënta gis. Mhm. ku nekk la ngay liggéey daañ la ci defal ay faveur même jàngalekat ba école ba muy jàngalee la muy fay bokkul ak benn parent d'élève bu fa jàngalewul mais danañuy fay. d' accord euh, lemin euh, waxtu wi euh, jeex na deux minutes rek fan yi dañoo gis club des investisseurs doon jàppale Akili mujjoon sax Babacar Ngom Sedima moom tim def na ci tamit loo xamante ni maanaam mën nañ ko see jaajëfal ndax nit mm-hmm. moom du rëy. Mm-hmm. ndax moom nangu ne ne def na njombe. Mm-hmm. def na erreur. bien vrai que kilifa la. te kilifa la ngay jël dogal da ko war a xoolaat xoolaat ko. rawatina kuréel goo xamante ne yow moomuloo ko dañ laa jiital kese. loolu jàppale googu lan moo ci sa xalaat. waa jàppale boobu li nga waxee sànq Babacar Ngom man xaw ma ko yàlla xam na ne man xaw ma ko mais li mu def yëfu kilifa la vraiment dañ ko war a naw ci loolu. Mhm. parce que du ñëpp ko mën. Mhm. ak fi mu toll ci réew mi ak li mu def ci réew mi. Mhm. mu dem ba bind wax ne man maa juum. loolu vraiment maa ngi ko ci encouragé di ko ñaanal yàlla ci loolu. macha allah mbirum ñoom nag xam naa bi affaire bi génnee comme mbirum mbooloo rek am na ñi nga xam ne xëj na jot nañu yër contrat bi. xëy na gis nañ ne wala dégg nañ liñ ciy wax leerul seen bopp donc soo déggee dara leerul sa bopp ba pare ñu bind communiqué wax ne jàppale nañu Akile ah ñi ci xamul dara am nañ droit wax ne ñun lii engagé wuñu mm-hmm. parce que li ñuy engagé mooy lu ñu toog càmbar ko parce que benn nit moomu ko ci li ma mm-hmm. xam mm-hmm. benn ñoom ñëpp ñoom ñoo ko bokk bu ñu toogoon waxtaan def motion mu engagé ñëpp donc ku mu engagé wul rek am nga droit xool léegi nag li ñu leen ñaan mooy ñoom mhm. ñu jéem a xam jël seen contrat bi ñoom seen bopp mhm. xool ko pour positionner wu parce que c'est des investisseurs et ëllëg ñun dañu leen soxla ci biir Senelec pour ñu investir. jërëjëf kon ñoo ngi lay sant bu baax di la gërëm. jërëjëf Abdou Khadre. jërëjëf euh, Lamine Diarra mbokk moom ngeen doon dégg moom nag mu bokk ci euh, syndicat unique euh, et démocratique des travailleurs de l' énergie nekk Senelec kon mbokk yi Abdou Khadre Seck moo nekkoon ci micro bi Adama Diallo ci wàllu technique bi yéen a ngi doon déglu rajo réew mi FM kàddu gi doon bàyyi ko fii ci Sodida jër ngeen jëf jàmm jàmm ba samedi bii di ñëw incha allah ci beneen jataay